man ma jàpp ni discours bi méngoowul ak jëfi tey pour wax leen ni leen comprendre leen enjeu yi nga xam ne moo am tey actuellement donc man d'accordatuma ak gatsa gatsa bi man d'accorduma ak façon xeex bii ñu ko bëgg a xeexee pour taal Sénégal parce que ñi nga xam ni ñoo nekk ci top management bi war a taxaw tey porter combat boobu ba nga xam ne tey bu ñu xeexoon ba jox leen réew mi ñoom ñoo koy soppi tey gis naa ci ñoom yoo xam ni doyuma te yoo xam ni avec des preuves à l'appui fi réew mi toll moo tax tay ma génn di wax parce que am na lu ma xam lu nit ñi xamul li ma leen di wax ci lu gàtt moo di ni yéen ndaw ñi li ngeen yaakaar amul li ngeen jaay loolu ku ñu ko jaay nga jënd ko tam moom lañ ma jaay te loolu ba léegi dafa valable. qui man ma jàpp ni discours bi méngoowul ak jëfi tey révolution mën naa si d'accord bu fekkee ni am na fu ñu toll ci injustice bu fekkee ni am nañu fu ñu toll ci recul démocratique bu fekkee ni bu fekkee ni bu fekkee ni waaye kan mooy jiite une révolution ak nan la ñuy jiite une révolution est-ce que dañuy jiite une révolution irresponsable mettre ce pays dans le de sens dessus sens dessous alors que ñiy porter cette révolution la li nga xam ni moom lañ wax ni moom la xeex ñoom tey jotaguñu nguur te ñi ngi ci biir dinaa ko leeral parce que ci laa bokkoon li tax ma génn wax tey nag bi ma dalee am problème ci biir Pastef ci ñàkk déggoo ci yenn façon doxalin yi yàgg na waaye dafa fekk ni kenn matul ma jàppoon ni kenn matul te mën nañoo xeex ci biir di ko lijjanti di xool ba keroog muy mag parce que projet bi nag rëy na l'idéologie ñëpp ci ànd képp ku ko dégg mu neex a dégg ci nopp képp ku ko dégg mu jaral la sa ay karawi yaram jóg taxaw nga ni lii dina ma jaral ma jaay sama kan ndax jihaad la képp ku ko dégg ci rafetaay bi mu rafet nga ni man jaral na ma ma deewute ko su ma ay set jëriñoo ko loolu moo ko indi fi mu toll waaye réalité bi ci doxalin bi ñu ngi koy nattee ci comme ni ko usman soo ko waxoon waxoon na ko ci benn réunion boo xam ni waa Yewwi mu ni leen li ñuy def ci réew mi tey suba dañ koo war a wane léegi ci fi nu toll ma gis ni ci biir wane boobu noonu nag dafa am écart wala mu nekk quelque chose de diamétralement opposé li tax mooy wax loolu moo di tey ndaw ñi lim leen jaral comprendre naa leen mais dafa am niveau d'information bu ñu yegg am niveau d'information boo xam ni yeggul fa te jàpp naa ni buñ leen xamalee ñu am niveau information bu ñu yegg tey ñun bi ñu yegg ñu am lu ñu ci mosal danañu def ndànk ci mbir mi ba bañ a taal réew mi ndax jàpp nañ ni ñoom bu ñu ko taalee ba indi fi li ñu fi bëgg indi ñu gëm discours boobu noonu tamit muy discours boo xam ne nag ku ko dégg gëm ko danañu soppi seen doxalin man nag dinaa leen wax ci ay poñ yu bariwul lii tax ma jàpp ni du ñu soppi dara lii tax ma jàpp ni tanewuñu ñi fi ne dañoo waxoon faire de la politique autrement ndax yéen journalistes yi jàkkaarloog man ndax yéen askan wi jàkkaarloog man est-ce que ban façon politique autrement ngeen gis tey bu weesoo lu dul ci côté financement nga xam ni tey ñooñu nga xam ne discours boobu convaincre na leen boobu ba léegi ñu ngi jël seen énergie seen xaalis seen temps di ko ci def di jàppale ay nit pour nit yooyu yegg si waaw foofu am na changement effectivement parce que fexe nañu ba wan ndaw ñi nii ñi leen di fal yéen a leen war a financer et ça je dis bravo waaye bu ñu demee dans la démocratie interne bu ma waxee démocratie interne nag yàlla démocratie le mot démocratie dedans bu ma waxee démocratie interne bu ñëwee ci démocratie interne rien n'est respecté dans le partie Pastef dans le parti Pastef tey il n'y a pas de structuration dans le parti Pastef tey Pastef mu ngi waaj a am fukki at deux mille vingt quatre lay am fukki at damay dégg ñu bari di wax parti bu bees parti bu bees parti bu am fukki at beesul parti bu am fukki at musul renouveler ses bases alors que dafa am ay circulaire son président génn ni dañoo war a renouveler base yi donc yan leader la ñu am au top management du parti c'est des leaders yoo xam ni amuñu benn légitimité mu indi une guerre de positionnement bu doy waar ci biir parti bi ci kaw guerre de positionnement boobu daal di fallaxe li ñuy woowee éthique ak fraternité bi nga xam ne dafa bokk ci biir turu parti bi mu am ay jëfin yu ñaaw ba moom président Ousmane Sonko yenn ñëpp dégg ngeen ko mu génn fi conférence ni leen jëfin yi ma gis ngeen koy def ci jamonoy locales yi mu leen jëfin yi ma gis ngeen koy def waa APR sax duñ ko def il avait utilisé ces mots-là effectivement c'est la réalité mais foofu la beneen question bu am solo di ñëwee boo constaté en tant que leader da ngay sévir boo constaté en tant que leader du doxul da nga koy defaraat waaye defaraat boobu moo amul parce que tout simplement parti bi tey li koy doxal du benn structure du benn organisation ay nit ñoo koy doxal ay benn benn nit dañ la naan structure moo fi nekk mais structure amu fi ay benn benn nit ñoo koy doxal dul aussi xalaatu mbooloo mi comme ni ñu ko waxan ci politique autrement la ñuy dajale jël li ci gën a sell joxe ko waaye ñu ëpp nag ci li topp ci masse bi ñoom loolu ñoru leen nag parce que Sénégal moo bindoo noonu dama koy waxtaan ak benn kilifa ni ko yaa ngi fàttaliku bi ñuy nekk école grève daan am muy man muy sama moroom ñu ci bari daan nañu dem grève ñu ni yuuxu rek nga génn sa classe for xeer ñu dem génne école yu bari fu ne ñu sànni fa xeer ànd ak masse bi mais xamuñu sax la plateforme revendicative bi ñuy xeex et c'est la même chose qui arrive actuellement dans Pastef ñu bari tey ñu ngi topp le parti Pastef ñu bari tey ñu ngi nekk ci ginnaaw c'est pas de l'électorat de Pastef c'est le Sénégalais qui est comme ça léegi nag fa mu gën a xumbe fa mu gën a bëree aw nit sénégalais moom foofu lay daal di tourner ndax ñun nag 2014 fii la ñu fekk bi nuy reetaan bi nuy wax ni fii ku fi amut xaalis doo politique bi nuy am problème mu dajale ñaari journaliste pour def point de presse tey maa ngi taasu ci barke bi ba bu ma nee su may def sama affiche sax damay bind au lieu que ma bind Abdoulaye Faye membre de tel parti damay bind Abdoulaye Faye démissionnaire de Pastef kooku taasu ci barke bi la mais barke boobu man sañ naa see taasu que liggéey naa ci donc pour vous dire en fait fan lañ jóge ak fan lañ yegg si tey pour vous dire aussi que ni Sénégal du ay foo ndaw ñi lay waxal pour wax leen ni leen comprendre leen enjeu yi nga xam ni moo am tey actuellement donc man d'accordatuma ak gatsa gatsa bi man d'accorduma ak façon xeex bii ñu ko bëgg a xeexee pour taal Sénégal parce que ñi nga xam ni ñoo nekk ci top management bi war a taxaw tey porter combat boobu ba nga xam ne tey bu ñu xeexoon ba jox leen réew mi ñoom ñoo koy soppi tey gis naa ci ñoom yoo xam ni doyuma te yoo xam ni avec des preuves à l'appui y a pas de démocratie interne ba buñ mujj bi ñuy mujjee changer les textes du parti bii ñuy mujjee changer du consensus dañoo jekki jekki ñu bind ni nii lay demee nii lay demee nii lay demee et jusqu'à présent dans la pratique même y a un problème parce que règlement intérieur bi accompagner ces nouveaux statuts mënul génn ba léegi tout simplement parce que y a des guerres de positionnement tout simplement parce que maintenant ma wax leen benn affaire y a euh, des groupes de personnes ou bien un groupe de personnes qui tiennent en otage le leader de Pastef moom xam na ko te mënatu ci dara maintenant c'est quoi son jeu est-ce que dafay foo ak loolu di def jeu de yo ba yegg fa am doole te gëmu mëni bu fa yeggee am doole dina ko mën a rectifier te moom xam na li xew ci biir parti bi moom xam na exactement tey li nga xam ni moo may yeewi askan wi jël lépp loo xam ni moom moo ko liggéeyoon partem waroon ko mën a liggéey moom gis na ni ci biir parti bi li ñuy wax fraternité amul le don de soi amul parce que ya a tellement de têtes y a de gens compétents yoo xam ne ñu ngi ci biir parti bi mais ña nekk ca kaw comme amuñu légitimité dañ leen di bloqué ba duñu mën a yegsi fi ñu yegsi mais ci bloqué boobu dañ koy defee ci façon yu ñaaw dinañ ko teg ci sos dinañ ko teg ci yàq deru nit ki mais ay pratiques yu gën a ñaaw yu ñu xamoon donc yooyu yëpp bu dajaloo ñu gis ko ci koo xam ne dafay woote jiite am réew wala parti boo xam ne dafa bëgg a jël réew bu fekkee ni nit ki responsable nga sa devoir mooy nga jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi jox leen seen droit mooy le droit à l'information taxaw nag neutre bàyyi leen ñoom ñu juger te leer na la li ngay wax da nga ko teg ci sa aqulaahi taala te loolu moo am tey te tàmbaleew ma ko nag di ko wax tey te bu fekkul woon fi mu toll yaakaar naa ne duma ko mësa wax tey parce que nag olof nee na am na nooy yàqee sa sëy rek dootoo jar ba mukk waaye fi dëkk bi tollu ak fi réew mi toll nag moo tax munuma ko noppiwaale ak fi mu jëm moo tax munuma ko noppiwaale donc du ma doon magum xamoon naa ko damay doon magum waxoon naa Donc, encore une fois, le leadership bu président Ousmane Sonko dama koy contester te mën naa leen wax mosal leen ci lan moo tax ma war a contester ce leadership benn boo nekkee ci parti di ko jiite parti bi am ay instance yoo xam ni dañ ni bu problème amee nii la war a jaar nii la war a jaar nii la war a jaar nii la a jaar nii lañ ko war a régler problème yi di am di multiplier wu te instance yooyu noonu yëpp ñi ngi ci biir parti bi mais mënuñoo régler dara li ci gën a graaw mooy loolu ñu doon wax naan mag yi day jël kuddam di ko teg ci dossiers yi ñuy jël kudd di ko teg ci ay dossiers ci biir parti bi nga xam ni nee nañu ñu ñooy espoiru weesu nañ sax espoiru Sénégal mais espoiru Afrique la ñu wax alors là c'est grave parti bi nga xam ni moom moo taxaw ni cumul de mandat ak li mu ci wax lépp tey bu ma leen nee par exemple Birame Souleye jóo mi nga xam ni moom mooy tey l'administrat non du l'administration c'est léegi vice-président numéro un bu parti bi tey yéen gis ngeen ci parti bi gars yi di ko saaga ci biir di ko yàq lu nekk ci parce que dafa yore mandat maire ak mandat député en même temps ñu koy xas di ko yàq lu nekk ci biir mais est-ce que xam ngeen lan moo tax mu yore ñaari mandat yooyu parce que Ousmane Sonko moo ko ni gardeel ñaar yépp te bu ma ci feeñ est-ce qu'un leader fonctionne comme ça moi je man leader j'assumerai dellu siwaat si base bi ni leen waxoon nañ lii amoon nañ mébét bi waaye euh, réalité politique dab nanu ba mënatunoo koo appliquer ni ñu ko appliqué woon et je prendrai mes responsabilités du ma bàyyi muy am scission dans mon propre parti ñuy sama propre parti ñuy saagante ci seen biir di teg keneen lu diis ci kawam te yamut ci loolu ci loolu la mujje teel ñaar yëpp ba ci euh, te bu ma ci feeñ boobu ci loolu la mujjee bi njëkk téel bu ma doon yow damay jël député bi bàyyi maire bi ba ci yàgg mu ni ko diw sàngam ñëw na fi wax ba jooy léegi danga koy bàyyil député bi jël maire bi mujj kooku it ay farandoom mer saaga mu ni ko na sa farandoo yi bàyyi saaga gi ñuy saaga ñu waxtaan mu gindi yàggul dara ci mitinu Kër Masaar bi mu ni ko kon nag téer ñaar yépp te bu ma ci feeñ Suisse gële ma nekk texte parti bi dafa wax lu leer parti bi dafa ne dama am ay cellule am ay section am ay coordination ñaata nit ñooy doon ay cellule section lan moo koy formé coordination lan moo koy formé ma créer coordination bi yoroon ko ànd ak Ousmane Sonko mu fekk ma Suisse ma ànd ak moom ba Italie gagné à cent pour cent dans tous les bureaux de vote en Suisse décidé de mon propre vouloir parce que dama nag li ñu bëgg ci suñu njiit yi ci ñun lañ koy tàmbale ma ne je ferai pas de second mandat man damay jël suma mandat bi fi la yem ma des ci biir bureau bi jox keneen jox kooku ma jox mu commencé def loo xam ni warut parce que tout simplement je dérange parce que tout simplement au top management Abdoulaye Pythagore fay dafay wax dëgg bi sans prendre de gants parce que nag man awma benn parti benn parti rek laa am muy Sénégal te képp ku ma àndal na nga xam ni Sénégal moo tax ma ànd ak yow Sénégal boobu sànq si ñu àndee bu ma ci gisee loo xam ne day sooxeel Sénégal dama la koy wax aw ma wax ci suuf ndax Ousmane Sonko bu waxoon ci suuf xëy na kenn du ko raje dafa wax ci kaw loolu lañ ko jiiñ kon bu ñu dem ba ci biir ñun suñu parti ñu bëgg maa waxloo ci suuf ma lànk waxuma ci suuf ñu xeex ma xeex bu ñaaw mu yëg ko ma bind leen jaar si tout les instances yi ma jaar ñu dëgg ci seen tànk teg seen ay kudd waxuma nag parce que damay fayantoo mer non dama ko xeex ni ma ko war a xeexe ci suuf bi ma demee ba gis suma engagement gisatuma ko foofu amatuma fa lu ma fa doy ma génn ndànk te teguma ci baat donc ma dellu si encore di leen wax ni fi réew mi toll moo tax tey ma génn di wax parce que am na lu ma xam lu nit ñi xamul li ma leen di wax ci lu gàtt moo di ni yéen ndaw ñi li ngeen yaakaar amul li ngeen jaay loolu ku ñu ko jaay nga jënd ko tam moom lañ ma jaay te loolu ba léegi dafa valable ci am mbind ak ci kaw ay kàddu valable na ba léegi loolu mooy le projet ak ah, bi ñu bëgg ñun mais kan moo koy porter c'est ça la le, problème et dans l'exercice tey effectivement bu ma comparer le discours euh, ak parcours bi passé mais avec la réalité d'aujourd'hui tey réalité bi la mën a xool dans la réalité d'aujourd'hui tey parti bi le top management positionnement moo fa am diirante mbagg cercle de connivence copinage euh, et nax tout simplement les patriotes duñ leen wax li nga xam ni moom moo am tout simplement parce que léegi dañoo wàcc suñu yoon léegi nguur lañu ñu teg ko bët nguur kese la ñu fixé teg ko bët parce que bu njëkk ci lan lan démarré ñu ngi démarré ci ay dénonciation ñu ñëw ci def parce que li Macky Sall wax gañee na ko mënta nekk dañuy wàcc lan moo tax wàccuñu Ousmane Sonko moo nanguwul woon wàcc lan moo indi digganteem ak sa Seck ñu bari comprendre ko parce que bu wàccoon deuxième bi mooy jàll troisième la ñu nekkoon xeexuñu foofu te ba ñu génnee kuy suivre Pythagore demal nga sama page Facebook dama ko ko reproché après les élections pourquoi wàccuñu pourquoi kaasuñu pourquoi parce que warul mën a demee nii mais ñu bàyyi mu jàll 2019 boobu nag ça a fait sortir beaucoup de rats xam ngeen Sénégal ni mu demee ça a fait sortir beaucoup d'opportunistes ma leen koy misaal ci ñaari mbir yonent bi dafa ànd ak 313 personnes ñu dem Badar mais ànd ak engagement abnégation ànd ak fit ñeme dee gëm li ñuy def te xam ne dañ koy am dem daan ay junniy junniy yéeféer moo tax chiffre 313 boobu des ba léegi bi ñu daanee gaa yooyu rek ña ragaloon ñu ñàkkoon fit ak ñépp ak ñi nga xam ni mëri la noor daal di daw daan ni wëpp gaa yi am nañu doole nañu dem ñoom tamit nag ci seen gàttu xel ralliement boobu ñëw de partout ñu am seen xare boobu ñuy woowee onaana war faa jëm nag daan nit fii de moom ab lim kenn dootuñu ci gañe ñun trois cent 313 ñu duma ñi ñëpp tey ñu ñu nekk ay junni ju dem ñu leen di duma di leen duma di leen duma ba lu wër yenant bi matul woon juróomi nit exemple boobu mooy tey li dal Pastef soo leen xoolee dans ce qui va venir prochainement parce que saraxe nañu projet bi Ousmane Sonko a fait beaucoup d'erreurs les gens ne veulent pas le dire pourquoi les gens ne veulent pas dire la vérité est-ce que Ousmane Sonko du nit est que Ousmane Sonko warul def ay erreur est-ce que Ousmane Sonko waruñu ko rectifier mu xam parce que doomu Sénégal la te dañ ko soxla te gëm naa ni am na xam-xam gëm naa ni am na njub gi waaye le leadership qu'il faut pour porter ce projet dafa diis et dans ce sens man j'ai vu que il a échoué par rapport pour porter ce lourd fardeau tout simplement dans l'exercice de ce simple parti politique alors connaissant ce que ça veut dire un état alors man je vais pas m'aventurer à continuer pour dire ni wóolu naa ko jox naa ko réew mi non non ca je le ferai pas je prendrai toutes mes responsabilités wax ni kii ma jàkkaar lool ki ma xamanteel ki nga xam ni bokk naa si ñi ko taal ki nga xam ni bokk naa ci ñi nga xam ni ay liet naa am la woon waaye Sénégal ma ko gën a bu ñu demee ba ma gis ay faay dinaa taxaw daal ni gis naa fii ay faay dinaa taxaw daal ni gis naa fii te faay yi ma gis gisuma ko ci lekk xaalisu jàmbur gisuma ko ci sàcc gisuma ko ci leneen dama koo gis ci sa capacité de manager te loolu dafa am solo si son leadership bi nga xam ni moom la war a def manager mooy mbir mi le manager mooy mbir mi donc bu fekkee ni yow sa simple parti politique bu ndaw bii nga xam ni depuis dix ans mi ngi taxaw ñu ko fexe ba structuré mënuñu def euh, euh, mënuñu def la structuration de base xamuñu kan mooy leader bu légitime ak kan mooy leader bu légitimul mu nekk un groupe de personnes ah ñu jël ñu mel ni ñoom Bassirou Diomaye Faye daal di jël parti bi nag jël ko en otage abec benn lobbying bu intense boo xam ne mën naa leen limal ay tur et fu ñu ma woo si un débat ma taxaw parce que c'est le Sénégal qui m'importe donc encore une fois ñu woote Gatsa Gatsa avant Gatsa Gatsa bi mars dama ci def liggéey bu am solo et je le regrette pas parce que je le faisais de bonne foi ñun on sait ce qui s'est passé au mois de mars parce que on a été des acteurs du ma ko weddi te bu leen neexee police wala gendarme mu jël si ma et j'assumerai mes responsabilités xam nga mes responsabilités sont là j'ai pensé que on a été dans une révolution j'ai comme nit si jeunes yi tey et j'étais prêt à tout sacrifier ma famille sacrifier mais bien sacrifier mon argent pour dugal ko ci combat boobu noonu parce que je pensais que le salut du Sénégal foofu la naroon joge effectivement te parti te yéen ñëpp ñu seetaan xam ngeen ni du parti Pastef moo libéré Ousmane Sonko en mars déedéet Ousmane Sonko a été libéré en mars par la spontanéité par des gens depuis l'extérieur di wax di sensibiliser les jeunes wan leen yoon bi mais aussi yamuñu ci loolu financer leen wax leen fi ñuy jaar ba mars passé faagaala ci diggante bi loolu moo waral bi mu génnee mu xam ni amul benn parti bu dëgër bu mu wéeru mu dal di dem wéeru ji ci yeewi askan bi foofu la jaaye boppam parce que yeewi askan bi euh, contradiction bi ñëw foofu déjà yéen ñëpp gis ngeen ko parce que ku ñëw taxaw tey euh, bëgg a fii wala bëgg nangam ak sànga am yu bari dans dans la communication mu wax ko nga ñëw ba ñooñu noonu ñëpp nga xarab tey nga obliger la réalité politique boole la ak ñoom ngay ànd ak ñoom ah loolu dama koy bàyyeeg les ñoom ñu jugel seen bopp mais li ma leen di wax moo di ni gars yi xam nañu Macky gars yi gis nañu Macky li ñuy def il est temps gars yi xam Sonko il est temps que gars yi xam Pastef man lii mooy suma mission bu nit ñi xamee ba pare nag on laisse le libre arbitre aux gens d'arbitrer mais bu ñu xamul foofu la grawe te bu boobaa àq yi ki koy yore mooy ñi xam ba pare xamalewuñu donc xam ngeen mag xam ngeen li mu def ak li mu deful xam ngeen li mu bonleeg li mu baax baaxle mais de l'autre côté parce que bipolarisation la ñu wax xam leen leen aussi mais dañuy étouffer mbir mi ci suuf mais parti nekku fa mais démocratie interne amu fa mais jub bi ñuy wax éthique amu fa mais li ñuy wax fraternité amul fa parce que ay fee moo ko wane ba fii nu yegg si loolu moom ma mën a permettre ma génn tey war a jàkkaarloo ak ñoom bari ci ay nawle bari ci ay xarit yoo xam ne tey xam naa bu ñu génnee fii fa la ñuy effacer sama numéro bari ci ñoo xam ne maa tax ñu dugg fa tey waaye tey mun nañ maa bañ mais je prends mes responsabilités c'est un devoir et c'est un droit que je dois aux Sénégalais parce que nii laa daan génnee ba may génn mars kenn yabalu ma sama engagement moo ma yabal bu ma toogaatee ba gis suma engagement yabal na ma ci beneen combat muy préserver la stabilité du pays préserver la paix du pays continuer di suuxat la démocratie mais dans la paix damay ànd ci loolu noonu parce que je pense que ni on doit être une jeunesse responsable et bañ a nekk benn jeunesse altoppé di suivre benn discours unique di suivre benn affaire bu unique loo xam ni baax na rek ngay wax kenn du wax ni bon na loolu munul nekk ci àdduna saa yow àndeek ay nit boo nee baax na baax na baax na d'accord tant que yaa ngi diw diw diw diw euh, lem ñu ni gongo ngay mën di dem di dem di dem mais bis boo taxawee ñu gis ni kii kat bu gisee ni ñuul na mu ni ñuul na bu gisee ni weex na mu ni weex na nga daal di tàmbalee am problème waaw kooku booy ànd ak moom da ngay xam ni te duggagul 4-4 amagul budget kenn escorté gu ko léegi da ngay ak connaissant le sénégalais da ngay xalaat bis bu budget bi duggee milliard ah logement de fonction bi dugg ñu escorté ko ah gendarme fii gendarme fële après le reste je vous laisse imaginer et ça par contre bu ñu deful ndànk foofu la ñuy dugg te duñ fa yegg parce que ñu ñu jàkkaar loolu duñu leen bàyyi ñoom ñu ni duñu bàyyi kan moo ciy dee dégg ngeen benn doomu kilifa wala benn doomu ku ni tudd ñu ni gaañu nañu ci loolu dégg ngeen ko doomi baa doole yi képp ñooy dee te xamuñu li xew dañuy jàmbaar nag bëgg changement ba fu ñu dégg ku leen wax yenn discours yi ñu neexal a nax parce que seen bëgg changement la et ça c'est légitime pour la jeunesse mais il est temps maintenant ñuy def la part des choses et di xool bu baax a baax a baax a baax tey bañ ñu ñuy yóbbu ci ci ci ci mëriirandoo mëriirandoo baaxul te loolu moo am ci dëkk bi. ils ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les